Lesson 8 Introducing tudd. My name is Mom. Baas la sant. My last name is Baas. Nanga tudd. What's your name? sant. What's your name? waa moritani la. I am from Mauritania. Sama jabar waa Mauritanie la. My wife is from Mauritania. Yow waa fan nga? Where are you from? Sa jabar waa fan la? Where is your wife from? Moom waa fan la? Where is she from? Moom waa fan la? Where is he from? John la His name is John. Hogan la sant. His last name is Hogan. John du waa Mauritanie waa Amérique la. John is not from Mauritania. He is from America. waa Amérique nga. Are you from America? Déedéet, duma waa Amérique. No, I am not from America. waa Mauritanie nga. Are you from Mauritania? waaw, waa Mauritanie la. Yes, I am from Mauritania. jàngalekat la I am a teacher. sama jabar du jàngalekat. My wife is not a teacher. John volontaire la. John is a volunteer. Jabaram du volontaire. His wife is not a volunteer. jabaru John doctor la. John's wife is a doctor.